Valeu, DH.

léegi nag àdduna nag ba jëm jooju nag ñu créé benn affaire bu ñu tuddee benn mouvement boo xamante ni ñu ko tuddee conscience citoyenne gëm sa bopp. ku gëmul sa bopp dama lay maye. waaw nga gëm sa bu dee doomu góor laa te am na seen pété day xañawul sa bopp foofu laa sama foofu laa bokk man loolu may. mais. coono ñu dama ko jëndee Dakar ba ci démb jëndee ko fukki junni tuddee ko gëm sa bopp. am soo ko jox ma bii mètre bassin bi si ne ma ñaw ko lu la doy ma def ci gëm sa bopp. waaw ba ñu fay. waaw mais pour loolu lay doy. avant ñu continuer. waaw Cheikh ñëpp dañoo ñëw. tey li ñu ci nag bi xajul ci cin. ndax ñëpp dañoo di. franchement. waa. sama gars yi ñu mën a koy waxee waa groupe Futurs Médias ñun. ndeysaan. sooy devant sama gars yi nga xamante ne ñoom. Cheikh Ndiaye en compagnie d'une forte délégation Agis. waxoon na gars yi ñu gàtt wax leen bu baax a baax di. Cheikh bi dama la wax li may sama xol laa ko waxal rek ñu ko mu Sénégal jëm kanam Cheikh Ndiaye yéeg na. mais gis ngeen lii ñoo ma jël léegi ba ci télé bi télé bu mag. gars yi ñu tàcc waat wax yi gars yi wax leen bu baax a baax a baax. waaw bopp bi la nii waaw sooy dem maa ngi nii ñi ñi ñi ñi ñi tax àdduna xam maa ngi nii war na ma ci kii ana si ana yoon waa gannaaw li mu doon ana gars yi waaye mu ngi tànn. waaw jàpp leen gars yi waaye bu baax a baax a baax. alaaka jàll ba baax yàlla na ñu waaye comme dëgg naa fi te ñii dañ maa woo ma ñëw may joué ak ñoom ci ay yeneen affaire yoo xam ne ay cancer ay nekk safara laa ciy joué ak ay yëpp càkkaaba ñu ne mu fay sa polyvalence ci aar ñun ñoo koy wane te boobu léegi franchement dinaa ànd naa koy gis yàlla na yàlla defal jàmm ñëpp xam nañu tey Dakar xam na mais jaayante ngeen ko taw bi taw bu ne defee ko du ci ngeen yàlla na yàlla defal taw bi yéen a baax. waaye loolu fan. avec tous les respects de l'histoire. un homme inspectrice, un homme incorruptible, un souverain qui ne se perche pas sur les frontières qui ne sont plus prises les questions. Je renomme Maodo Malick Mbaye. yow sama grand frère. donc di nuyu aussi suñu xarit. Modou Fall ndax ñun ay artistes lañu ah dañ ko xool xam ne Modou Faye du musique rek la ma ne am na lu nga xam ne mënuñ ci moom di nelaw ah bu fekkee yàlla nag naata la suñu xel bi ñu mën koo yee Modou Faye dañ koy yee pour waa Thiès jërëjëf waa Sénégal jërëjëf encore une fois di gërëm waa Thiès di xam ne ñun amuñu lu dul yéen muy ñun Faye Levant. kuy grand Maodo Malick kuy lépp képp ku jugee Thiès dem Dakar rek day jël di andi Thiès ndax amuñu lu dul Thiès ndax amuñu lu gën Thiès. Thiès moom la ñuy ndamoo ndax moom donc mooy benn réseau bu nga xam ne boo koy tàgg tey da nga naan Thiès ak Diop ba ñu laaj si Diop ak Diop Diop pour Diop. boo ñëwee fekk ko li ñu ci mën a muccal nag mooy suñu say daal wàcc sa bopp ci suuf marché bi Dakar bi noonu la ñu waaw fekk nañ loolu. tey nag xam bi dañoo jëloon pause dama leen di sampalaat tey ci palais des arts. dina dina dina dina. Thank you. ak ñi fi nekk ñëpp may wax ni Modou yaakaar naa ni bis bis ko bis xam ni Thiès la ko ñuy si ñu ngi yëkkati parole bu ko def ci turu président mouvement conscience citoyenne Maodo Malick Mbaye ma ànd si ak ma àndal ñëpp nga xam ne tey ñii boobu gisee ay sëru Maodo Malick Mbaye ñu fi teew ñi nga xamante ni ñoo dëkk mouvement bi ñu fi teew yaakaar naa ni ci biir public bi fii na ñoo fi gis ñu ëpp ñu bari ñoo xamante ni mouvement gëm sa bopp la nekk ànd ak le président de la République ñu si gis sargal la nga gëm sa bopp te da nga maa ngi fi mu la defal tey du ci yow la ko njëkkee euh, waa ji ñu jógee léegi ñu waaj am solo yi dañuy def seen anniversaire tey Malick moo leen jox billet Dakar Banjul Dakar loola booba solidement demewul nii mais heureusement loolu ñu xam mu am ñeneen ñoo xamante ni ay artistes yi ci dëkk bi Malick moom ci jàpp seen diggante moom rafet lool mais sa bopp da cee raw parce sa bopp dañ ko ànd ba noppi fësal ko du ko wane kon yàlla yàlla yàggal ànd tey jii nag mu am loo xamante ni Malick daf ko teg ci bis

nga xamante ni lu jëm ci yow la mais lii da di cadeau boo xam ne daf ko defoon def ko au nom de sa femme madame Mbaye Khady Niang nga xamante ni tey dafa am empêchement moom moo ko teree ñëw mais elle de tout cœur avec toi may wax ni tey kontaan nañu parce que li nga def nii dafa rëy ci ñun du fi nga jàpp foofu la bu ko bàyyi le président Malick dafa waroon a voyager am ay engagement yu bëri. mais dafa wax ni du bouger du dem fenn tant que ñëw fekkewul bis bi ngay def nii Thiès nag nii la parce que ñi gëm seen bopp fu ñu nekk dañuy fesal seen féete dañuy ñeme li ñu donn ànd ci ak yow te yaakaar naa ni fi nga jàpp boo ko bàyyiwul di nga dem ba nga xamante ni fu artiste di dem ci réew mi Malick fas yéene la yóbbu nga teg sa tànk foofu sargal Thiès sargal Sénégal donc jërëjëf ñu ngi leen di remercier vraiment di remercier ñi fi nekk ñëpp di leen sant di leen gërëm di la encourager jërëjëf. boo waxee ci Maodo Malick Mbaye te ñun mouvement citoyen gëm sa bopp waxuñu kon dañuy lekk riba barke yonent bi Maodo Malick Mbaye yow la ñu directeur fayoo sa téléphone changé woo numéro ku la woo jot la xaala yoon we Maodo moo fi jaar ñoo ko bokk kontaan nañu